السلام عليكم ورحمة الله بمحمد وببنته وببالها يا رسول الله موي وابنيهم سبتين آلام الهدى كان موفقنا بك سيدنا محمد بمحمد وببنته وببالها وابنيهم سبتين آلام الهدى محمد الأمين وبصحبه والتابعين لهم فهم ساداتنا أهل المكارم والندى فرج سقام العبد واكسف كربو كان مو في غنا بغ يونن يا خير من مد العساة له اليدا فرج هموم المسلمين وكربوا يا خير من مد العساة له اليدا أمين مويدا مي وبين ستي أبدي مناف دي ستي تزورتا يا يوم مصطفى العالمين على النبي وعلي عدمهينا آه. صلاه ki ndar ci yoneen amina mooy doomi waadi sëcci abdi manaaf di sëtti ci zuurata yaayu Seydi El Hadji Malick neena ala nabi wa alayhi ku def ni yàlla nga salaama rabbina daimana أنا صبي أنا ابن كلاب وقل فيه انتزاب وهما عاتكة خلاه بركة يرون جانا على نبي وعلي آه. أجمعين سلاما bokki ndar géej ci yoon neen wa umuha ay uma minatil fa umu seydil haji maali neena ala nabi wa alayhi ajmaina salama rabbina daiman جفلني جيومين وبرة البنت عوف أمومي حبيبي لا تزل دائما في البركة يرونك أنا على النبي وعلي أجمعين سلام ربنا دائما عام أنا صبي حسين لقاء المصطفى مع بارك وأمي حبيبي سيد الحاج مالك على النبي وعلي أجمعين سلام ربنا دائما تفلني جيانا وبرة البيت عوف ولا على كعب وهر ولا تزيد الحاج مالك قريشي ما نقد فالنا على نبي وآله أجمعين سلام ربنا دائما سيري بيسي سمامنا لله دار الذي حد حال كرما دحو جزاو مولا خير خير ممن لنا على نبي وآله أسرنا سلام ربنا دائما أن الصفيا فالعرب خير أناس ثم خيرهم عيشه وهو فيه ما مضى رمضان على نبي واله أجمعين سلام ربي دائما آه. سفلني انقلابك أمور ما مضرون كان على نبي وآله أجمعين سلام ربنا دائما لختي أنا ودبت الأمور وإيماننا على نبي وعلي سلام ربنا دائما سفلني جيوننا خديجة وعلي وكنها بشكير وما بدهوتي صابيون يا أجمعين سلام ربنا دائما يسلمني تيونين ثم بن عوفي وزاد الأسعار لخي تشكو لخي تشكو زابيانغو أبو بكر زابيانغو أنا أمر زابيانغو sunu saaba yaago ana aliyo saaba yaago loxo yi ca kaw saaba yaago soppi sëñ baaba gis yoo saaba yaago soppi sëñ baaba gis yoo saaba yaago ana soppi xalifa saaba yaago mu jaral loxo ca kaw mu jaral loxo حمد زاب يا رسول الله حمد زاب يا رسول الله كل حيانا وفكر زاب يا رسول الله حمد زاب يا رسول الله حمد زاب يا تنجا حمد زاب يا رمجا حمد زاب يا رسول الله حمد زاب يا déglu bi làmb da ci na bee ko ya rasulallah def leen nii def leen nii يا قمر

رحمتي ابن عبد الله رحمتي ابن عبد الله رحمتي ابن عبد الله رحمتي ابن عبد الله دفلني دفلني ابن عبد الله نيب دفلني ابن عبد الله رحمتي ابن عبد الله رحمتي ابن عبد الله رحمتي ابن عبد الله doomi Abdoulaye Diop doomi Abdoulaye Diop doomi Abdoulaye Diop doomi Abdoulaye Diop doomi Abdoulaye Diop ana waa Ndar yi doomi Abdoulaye Diop doomi Abdoulaye Diop doomi Abdoulaye Diop jug leen ñu màggal Yonent bi jug leen taxaw ca kaw jug leen ñu màggal ñu leen a xaw ca kaw ñu màggal Mamadou Lamine ñu màggal Mamadou Lamine ci yonal ci guddi ki yonal ci yonal ci guddi ki yonal ci guddi ki yonal ana soppe yonal ku bëgg yonal loxo ca kaw yonal ana soppiyam yéen a ko bëgg yéen seen loxo yi ca kaw yéen a waa ndar Muhammad moodi tuuram moodi tuuram lu baax yeloona yonna nabi yow loo mën a wax doo paasi kii baax na yonna loxo yi bu di xaaje ba ñëpp di nelaw loxo ca kaw ñu dund nelaw dañuy fanaane teg yoneen di fa def nabi ko Mustafa na ko yoneen ana soppe yi sëñ Babacar kum ka ci jaaral loxo yu càkk ana soppe yi sëñ Babacar kum ka am aajo yëkkatil sa loxo ku fi am aajo yëkkatil a dem Tiwaawan ziyaare Mam Moodu ziyaar sëñ Babacar may xalifa Ababacar wax leen bay si mbay yenee bay si mbay Serigne Cheikh Al Maktoum yal na ko yàlla gërëm amiin moo demoon Ndakaaru jël fa gaynde ga gaynde yóbbu na gaynde bàkk leen sëtu Maodo lam bi diine Sadina doomi soxna ya démb Cheikh Tidiane lanu wàlle bàkk leen sëtu Maodo Cheikh du tiit ba jóg daw du mer ba teeyadi Tidiane ma tom du yox-yoxi bàkk leen sëtu Maodo ruq am na borom Serigne Cheikh ay borom ruq bi ruq am na borom Serigne Cheikh ay borom ruq bi ku bàyyiwul duguru dina fekk la ci biir ruq di la rëkk sa ndigg rëkk na sëriñ Cheikh xay borom ruq sëñ Abdou al amin yal na ko yàlla gërëm al amin al amin yal na ko yàlla gërëm ilahi bi xut bil arifina imamina ana taalibi Cheikh digguma dara ana taalibi Cheikh أنا طالب الشيخ Serigne Abdou moo daan wax ni kun laaj ndax taalibe cheikh nga ngay diit diital nee na dog nga ci tariixa bi ne bu nee nga ana tiijaan dégguma leen ana tijaani ana tijaani xanaa xamu ñun tijaani bu yowmal xiyaame ñoo Seydina Muhammad ñuy bokk kër ca aljana ana tijaani eh neexul ba neexul waaye koo gis mu rafet sol rafet gisoo ma sañse di xeeñ lu neex jëbaleer boo koy woo nee ko taalibe cheikh moo tax ñun taalibe cheikh yi ñoo am sëriñ bu mës a wax lii su ma ko waxee di ngeen xam ki mu doon ne mësuma mooy yàlla mësuma fecci kóllëre mësuma dogu mbokk mësuma wax lu amul mësuma lépp bor bu ma fayul waaye xam ngeen ki may wax waay e naa leen ko kan la ñépp nee na Serigne kan moo fi gën a bëgg Serigne Babacar ki fi yër cër ak i dogal am i sañ-sañ ci di yëguwul moo sëñ Babacar yër cër ak doog yore dandan ci diine yënguwul moo di mooy sëñ Babacar mbër mi kenn tegaalewul te ma daan boo di mooy sëñ Babacar xalifa maa baynal ardiin ki ma doon moo di mooy sëñ Babacar xalifa maa bayna samaawaat ki ma doon moo aca mooy sëñ Babacar doon nu Maodo doon nu Cheikh saga dem mooy sëñ baaba ka ca barzaq tey wax ak waa narima mooy sëñ baaba riyër ci riyër ak i dogal yore la njaay ci diine jaay gi gul moo mooy sëñ baaba ku fi gën a baaba kër ci Babacar ngalaway jigéen ñi ndari géej yéen ci Babacar ngalaway góor yi ndari géej yéen Babacar ana soppi tafsir Gueye bu nu sàggan ci Babacar ana soppi tafsir Gueye bu nu sàggan ci Babacar ana soppi Chérif Mawe bu nu sàggan ci Babacar mbay ku ci sàggan ñoo dem bala mbay ku ci sàggan lii ku ci dul ñëw gi ku ci sàggal Sénégal mooy gi Sénégal eh, mooy gi Sénégal mooy gi waa dëses ñoo organisé guddi yeneen bi Tijaan yi ñëw nañu Murit yi ñëw nañu Xaadir ma woo ma bëgg nga ñëw bégal wa waa ndar ngir yónneen bi xam nga dama am kilifa ma woo alaaji duudu kenn bay mu ni ma demal nga teewal ma ngir yónneen bi ma teewal ci waawan ana taalibe taalibe cheikh yi ana taalibe cheikh ana taalibe taalibe cheikh yoo ko yor tijaani ñëw nañu tijaani ñëw ana soppi cheikh

moo tax ba ma demee Saalum ma demee Saalum gi wàcce na indi fa courant ba indi fa rang-rang ba dem ba Tiwaawan lu fa baax moo ko fa def defar na jumaa defar hôpital ya ku feebar mu faj sëñ Abdou ku dee mu de la al amin wàcce na al amin wàcc na jirimi jooy nañ jirimi jooy nañ loxo ca kaw jirimi jooy nañ taalibi jooy nañ zarafat ayna ya damaan waaye ku sopp Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine nga def nii kon waman lii waa ndar ku man lii Seydi Hadji Malick sama turandoo turandoo moo man lii moo tax ma jóge Tiwaawan ñëw fii tafsir woo ma fii ma leen di wayal lii ku jug taxaw yàlla fi teewaat bis bu mel nii wa man lii bi ustaadin yurabbi muridawa bila xalwatin bal himmatin misla ahmadi wa man lii بإحراج الحقائق ناصحا ومن لي بتدرس الكتاب ومسندي ومن لي ببذل الفقه والنحو منطق بيان معاني بديل بمسيدة ومن لي بورش بل جنيده سب سيد الحاج مالك جوغا تلتخو أصولك سيد الحاج مالك يا مسول عرودك سيد الحاج مالك مام يا مسول سيرة البدي مقودي ببنين يوم ما شاء الله تبارك الله